oui monsieur Diop. waaw c'est bon c'est bon c'est ñu ngi lay nuyu. Ah, di la dalal fii ci site d'information Sénégo. waaw. di la bàyyi rek euh, nga présenté par rapport ak internet yi lay déglu jamono jii nii. waaw d'accord euh, mhm. mhm. jii ma. te tey jii mu am benn incident boo xam ne daanaka moom moo lëmbe réew mi fu mu nekk nii mooy euh, incendie bi nga xam ne am na ci service bu néonatologie euh, néonatologie du moins fii ci hôpital Maam Abdou Aziz Sy de de loolu ban jàngat nga ci am. waaw ñëw naa foofu dem naa ko xool euh, liggéey li fi amoon. gis naa saxaar si bëri woon na lool loolu aussi daa daa daa ndax xam nga service yooyu day am euh, a ay ak lu méngoog loolu maanaam matelas yeeg fil yeeg câble yi loolu nag bu fekkente ci jom li ñu wax ne mooy indi feu mooy court-circuit bu fekkente ne laal na loolu nga xam ne day alimenté feu bi day jox feu bi dayo su ne ci instant yi rek fay ñu ko mën naa indi jéye loolu moo demee loolu mhm. mais euh, service boobu yàlla dogal war na day kafe problème bi doy yu fa mhm. ba sax mu demee noonu ba léegi maa ngi ci xalaat. Mhm. mais damay yaakaar ne ña njëkk mhm. waree ndax da nga bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñoo géré woon installation bi. ndax di nga bo ndax da bokkoon ci ñi géré woon installation fii euh, euh, ci service néonatologie bi. installation sécurité incendie bi. waaw waaw bokk naa man maa ko def mhm. boobu nu mu nga nga baal ma monsieur Diop bi nu mu mhm. e. mais mais li ñu seetlu jamono ji mooy euh, c'est pas la première fois ji yu mel nii di am parce que amoon na à Linguère si on se souvient. en l'espace d'un an mu amaat fii également mais lan mooy défaut bi exactement li nga xam ne moom mooy la cause bi ñu war a mën a duut baaram ne lii moo waral lu mel noonu. problème maintenant électricité bi mhm. problème maintenant électricité bi benn la. Mhm. loolu euh, règlement wax ne at bu nekk war am service qualité xam ne war a ñëw unité installation électrique. Mhm. parce que bu fekkente ne appareil yi euh, euh, hôpital bi am ay services yu bees. di am appareil yu bees. te installation foppul appareil boobu yokk ñu emballage bi yokk ñu montage bi ah, euh, defaraatuñu kii euh, norme norme euh, installation bu normé hmm. day mën a indi court-circuit est-ce bi am yëpp hmm. origine bi électrique hmm. donc maintenance hospitalière bi de de de maintenance hospitalière day war a seetaat xoolaat ko fulaal ko ko jox ko ay ba ñuy saytu loolu ba problème électricité yi du fa am donc en parlant de en parlant de maintenance ñun dañuy mën a xalaat ne carrément mën nañ xalaat lu mel ni ay genre responsabilité ci ci mbir mi. ma ne en parlant de de respons de de maintenance. loolu dafay wane benn piste boo xam ne jëm na ci côté responsabilité bi responsabilité bi ñenn ñoo waroon gérer maanaam maintenance boobu ngay wax. mais xam nga c'est tout un produit boo xam ne xëy na enquête bi dana déterminer ba xam ku ci nekk lan moo ci sa rôle lan moo ci sa wargar mu génn bi ci mhm. xam naa dana déterminer loolu mhm. ci nekk mhm. ak lan nga ci def def te defoo ko ba jëye yi am ci jóge ba moytu yeneen ba lii dootu am Sénégal alors on annonce l'arrivée du ministre de la santé fii ak euh, fii leeg quatorze heures quinze heures jàpp seize heures yooyu noonu lan lañ mën a xaarandi ci moom moom mu ay décision forte Mhm. ay décision forte lu xew lii lu xew Sénégal. Mhm. décision forte yi nag c' est sur le plan organisationnel sur le plan équipement ci plan organisation plan équipement et plan euh, gestion de la maintenance. Mhm. monsieur Diop ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax.